mi taxawal combat bi nga xamante dox na ci diggante Zarko ak Bébé waaye du nuyu ki nga xamante mooy suñu père Makan ah di ko nuyu bu baax a baax moom mi nga xamante ne taxawal na tamit combat Zarko ak ki nga xamante mooy Coins mbokki loolu lépp ci làmb la waaye nag làmb comme ni ma koy waxee rek làmb moo baaxoo coow ndax làmb bu amul coow rek defe naa ne làmbeetul waaw làmbeetul te nag mbokk yi ñëw seet suñu benn confrère muy Modou Anta defe naa ne yàgg ngeen koo gis muy ngeen koo ci bas écran bi te ñu seet su ko bëgg waxtaan ak moom ndax defe naa ni lépp loo xam te am na ci information defe naa ni fekkee na ko wala boog lu ci bële yéeg na ko te ñu seet ko bëgg waxtaan moom ci actualité bi nga xam te ne am na ci ma bàyyi ko mu nuyoo rek ñu doog a dugg ci waxtaan wi Modou Anta nuyu naa la. oui Ousseyn maa lay nuyu baax di la ziar. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. rabbi auzu bika min hamazati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruuni ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu fii nga ma fekk muy waa parcelle. 1 ba 26 ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax rawatina aussi tamit euh, ki nga xamante bi nii mooy Sa baa di suma waay di suma xarit na koy jox wàcc waayam bu baax di ko nuyu di nuyu soxnaam comprendre nga di nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp tamit moo xam fu ñu nekk rek si réew mi wala si bitim réew rawatina waa Njeng ga ma dëkk di waa Kër di waa Thialène waa Poitiers Mbusa Sanc Mbusa Ndiir ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu aussi tamit suñu père Gaston di ko ñaanal gudd fan rek ak wér gi yaram ba mu dellu si waat si njaboot gi parce que tëraay bi yàgg na mais mi ngi meñcee ànd ak gëm yàlla gu mat sëkk te xam ne moom jaam moom mooy am xaalis jaam moom mooy am feebar jaam moom ay nattu jaam mooy am wér suñu borom mooy tege feebar mooy joxe wërsëg mooy joxe nattu te lu mu ko si jox lu nekk dafa war a jël kon nag ñu ngi koy siyaar di ko jox wàccuwaayam di ko nuyu di nuyu soxnaam aussi tamit suñu yaay nday Mariam di nuyu Anta aussi tamit di nuyu wa kër ga yëpp di lañ jox seen way di ko ñaanal gudd fan ak wër gi yaram ba mu delu ci waat ci gi bu baaxa baaxa baax am nañ ci yene bu baax. ah naa nuyoo bi amna solo comme li nga wax ak yalla nako yalla monté li mu jogo ak jàmm fëgg euh avant lamb ji avant avant avant journée bi passé defe naa mu doxon ci digënté ñaabu Ndaw ak ki nga xamanté moy zako bi mu jubsé dañ ci waxtaan. joxoon nañu rendez-vous mais keroog euh, bi ni ñëw ñëwee esaat ni gis nañu ambiance gis nañu bëre. Mm-hmm. lépp loo xam te doon nañ ko xaar ci bés ba gis nañ ko ñu ciy félicité waat waa Gaston production bu baax baax baax a baax baax euh, ngeen jóge ci làmb jooju euh, làmb ji jeex gars yi guñ ko ci ci ci ci ci ci mbedd ci grand place yeeg ci gaz yi jékki bi nañ coow dékkiwaat defe naa ne avant ñu fay jógee la la ki nga xam que combat ak ki nga xam te mooy Bébé Diène taxaw na ñu xëy ci lendemain ba dawalaat ay fan coow lu commencé ba ñu jékki-jékki dégg ne Zarko jëlaat na avance ak ki nga mooy Quench Zarko daal mooy boroom coow li Zarko dem Espagne ñibbisi waa Farou Dia gàddu coow lépp téye ko fi mu doon làmb ji moom Modou Lo roi des arènes sax fàtte nañ fi mu doon ni Zarko yow coow li mais benn benn mbër jóge ci contrat jël ñaari avance promoteur ñaari promoteur mu lekk seen avance mm-hmm. andi coow lu bari ci làmb ku ci nekk nag yaa ngi koy interprété nu la neex mais euh, dañoo gis nga xam te ne mooy manager nee na moom jël na avance te benn promoteur la signé coow li. waaw waaw coow li mënut a ñàkk parce que làmb moom ci coow lay commencé Ouzin ci coow lay jeexee làmb moom bu demee ba coow génn si rek neexatul. Mhm. parce que tamit promoteurs yi moom coow li bari na waaye fépp foo xamante bi ni amul visibilité fépp foo xamante bi ni amul lu mel ni Zarko duñ fa dugal seen xaalis. parce que tëgguñu mbër mu naan ay yalla bax nak ba jour ak ay ban yegg ca ndax mbeur da ngay jaay sa bop nga jaay sa image bu ko defé gaay nga am ñoy promoteur ñu man la xam nga songu xëccio la ke taxawal na combat bi ak Zarko pour la 4 août. parce que lool niñ ko gisee rek lañ koy parce que do gis lu wéx ne li dafa ñuul. comprendre parce que bu boba sax sénégalais dañ lay jamay ke avant comme Zarko dafa jëlan avance ñaabu ndaw. avant muy bëri ak ki nga xam ne mooy Diène Kairé le 17 décembre. après bi loolu jeexee tamit bi mu jëlee avance su bi mu continuer ñaabu ndaw jël na avance su bébé Diène avant le 4 février. combat bi nag passé na jam xam nga def na déclaration am ne taxawal na combat bi Ousseyn bu fekkee ne da ngay jar 5000 francs ma waxaale yow ba juboo bu ma la avancé 1000 sax bu dee marchandise wala lu mu doon am naa ko fa. lenn mooy mën a am. Hmm. dog njëg googu. bu ma toogee deux jours dégguma la gisuma nga complété am naa droit dem jëli leneen mhm. mais loolu yëpp ci ay accord principe lay doon ci ay waxtaan yoo xam ne duñ ko tënk ci ay këyit mais bu dee waxtaan buñ tënk ci këyit nag ah bu boobaa nag règlement day daw mhm. waaw. règlement nan lay dawee. règlement nan lay dawee mooy Zarko jël na avance parce que tey Zarko bu dee ci kilifa as mooy kilifaam wala Jibi Samb mais bu fekkee ne ci kilifa lamb moom mooy seen kilifa ci kilifa làmb moom mooy athlète bi moom mooy bëre. Mhm. as amul droit dem di waxaaleeg combat Zarko te Zarko waxal ko ko mhm. Jibi Samb amul droit dem fenn di waxaale combat Zarko te ñooñu nag ñoom ñoo ñëw wax ak Jamaïcain <clears throat> wala ñoom la Zarko yebal ci luñ jot ko ay information ba comba ba taxaw léegi mhm. combat ba taxaw na ñu toogaat tuuti Zarko ne jotul avance xaalis bi mi ngi ci ménagère am xaalis bi mi ngi ci agent am moom jotul avance te dafa waxan promoteur bi ne bu daanee ñaabu ndaw du bëri ak bébé jéen ci lisaar ko wax parce que démb leen ko jëli lii ma wax du ay sos image yi mi ngi fi nee na loolu waxante ak promoteur bi dem ci Gaston production leen amuma combat pare naa pour bëre le 28 avril moom athlète bi nag comme moom moo wax loolu noonu ñu jox ko avance pour le 28 avril. léegi coow li commencé balaa ngaa ñëw ci le 28 avril bi euh, da da nga wax sànq bu tudd ay kayit te boo xoolee euh, fi ñu dem ba signé kayit yi dafa mel ni ci avocat ki nga xamante ni mooy maître Seye ci avocat ki nga xamante ni mooy Zarko la leen Zarko yebal parce que maa ngi dégg ci ay wax euh, Jamaïcain ne dem nañ fa ñett yoon su ma juumul pour mën a signé kayit yooyu kon est-ce que jàpp ñun jàppuñ ne. Zarko jot na waxtaan ak ki xamante ni mooy mooy mooy mooy euh, promoteur bi ba tënkoo ci kàddu ba yebal manager ci avocat pour ñu mën a dem si signé kayit yooyu. Ouzin waxtaan Zarko bu waxtaanutoon ak Jamaïcain du fa Jamaïcain du am combat. gis nga sa waaye nañ wax dëgg rek ay yooyu yëpp amul problème quoi. Zarko tey Jamaïcain du taxawal combat te jaaru ci Zarko laaj ko ndax bëgg nga wala bëggoo. Zarko ci boppam moom moo ne dafa bëgg a bëri ak bébé jéen kenn waxu ko ko. moom moo ko waxal boppam. ah non wax na ko démb. parce que man lu wax day am preuve parce que man duma ma ne Sénégal gi man dama wax nit weddi ma wala mo xeeb ma de bu fekkee né concurrent nga ak man wala bu dee sama non nga man nga may wedd man nga may saga mais lima lay wax day tok té mbindef du ko dindi comprendre na parce que bu may wax damay xol ci raqib ak atib parce que sama loxo bi man kese koy géega non comprendre nga Jamaïcain mo am accordu Zarko accord bi nak ci Zarko la jógee jaar ci menacer jaar ci ki ba combat bé taxaw mais légui lén amna pour le 28 avril pour le 4 août lenn rek a ko mënoo defar muy dialogue Zarko bëri ñaari combat yëpp bu dialogue amut Zarko def li ko règlement bi may li ko règlement bi may mooy nee na avance ñëwul ci moom ci ménagère am la yem avance ñëwul ci moom ci agent wam la yem ñooñu ay nitam lañ parce que ñoo koy engagé. comme moom jotul avance bi nag ménager bi bi muy dem di régulariser jot completement wu avance Zarko completement avance bi promoteur bi jox ménager bi yegsiwul ci Zarko. bi ñuy régulariser woowuñu ko réglement bi may na sarko mu bind leetar yóbbu CNG ne leen sama ménager li mu def ànduma ci régulariser bi mu def ak avance bi yooyu yëpp amul lu ma ci ànd léegi bu fekkee ne CNG euh, lettre bi Zarko bind validé nañ ko kon Zarko day am droit dem bëre di vingt 28 avril ak Coens bu fekkee ne lettre bi Zarko bind CNG daf ko annulé Zarko kenn mënta fexe ba la 4 août du dem bëre ji ak Bébé Diène démb dama gis Zarko yëkkati xaalis bi na avance baa ngi nii suñ bëggee nañ ko na ko ñëw jël si 3 millions yaa ngi nii téye ko ci loxoom mais démb bi mu defee loolu euh, dama dégg ki nga xamante ne mooy jam nee na 3 millions yooyu noonu moom xamee na ay billets billets du la joxe woon avance. ah jamay kay kay nee na moom nee na xaalis bi Jibi Samb génne du xaalisam. mbuus bi daal meen ay billets. Jibi Samb nee na mbuus baa ngi 3 millions jamay kee ngi nii na ñëw jël xaalisam bu bëggee. jamay kee nag nee na moom xàmmee na xaalisam xàmmee na ay këyitam kayit yee mu gis ak mbuus bee du ay 3 millions mais de toute façon Ouzin mhm. li ma ciy wax mooy gars yi mhm. bu kenn def affaire hypocrite ci suuf mhm. gars yi na nekk ay nit ñu weex tàll jéem a rafetal affaire bi moo ci ëpp solo parce que tey lii ngay nekk di xëccoo fii am na fii wala am na fële xamoo ba xam di nga ko fekke wala doo ko fekke lii làmb la day jeex sport la bu boole du ta tàqale coow li li muy bari bëri Modou Lo ak Ama Balde ba ko Modou daanee Ama daa ñëw léng ko félicité ko dem image boobu ba tey dafa des ci xolu sénégalais yi mm. lii du dara mën ngaa xëccoo ba jot bis bi mm. bis ba jot yow nga feebar mm. bis ba jot wala sa mbokk kenn génn àdduna wala dootoo ko tal ñaanaluñ ko kenn nag kon daanaka lan moo ko fi jar tey maanaam euh, Makan précisé wu ci Zarko bu ma bëreelu du bëreel kenn Makan nekkul ci loolu. léegi foofu sax laa bëggoon a ñëw coow li li muy bàyyi bàyyi waa Gaston gisuleen ñu ñu yëy ci yàbb ci waxuñu ci ñoom ñoo ngi toog seen kan pataal kooku lan la. ah moy li ma la wax rek xam nga man mi di genn nekuma bokuma ci structure bi nga xam ne mooy taxawal ay combat man ci Gaston Production presse bi la bok comprendre nga mais dama ne la gisoo Makan mu genn def interview giso Père Gaston mu ci wax gisoo abdullah Ndiaye mu ci wax gisoo ron mu ci wax gisoo kenn ko xamanteni ni bokku na ci ñi taxawal ay combat di démarcher di wo di négocier wax ci amut kon mana na ne cioli limu bari bari ñatti nit la Zarko la Assise la Jamaïcain la Jibi Samb la man na ne quatre personnes la tay nak bu fekkee ne tay Zarko man na dem bëreeli Jamaïcain la 4 août te du am do dégg Makan ne wax ci wala mu euh, plainte Zarko wala mu yóbbu ko ci yoon du am comprendre nga parce que li ciow luy bari bari mi ngi toog ru xam tay Modou Anta man na nek ci ay détails mais Makan depuis 4 avril 2021 du ma nekk di sangale xaram de parce que moi lañ sék mu ma fay respecté ko ma respecté ko di liggéeyal mais 4 avril 2021 mu ñëw ci làmb ji ba tey mosoo ko dégg ci ay détails mosoo ne moo fi wax wax bu ñaaw bi wala moo fi euh, euh, dépa euh, dépassé nit wala dara mosul am te làmb cas bi gën a naa critique ci biñ tëggee Balla Gaye ak Boy Niang déggoon nañ fi médical avant combat bi deux mois avant ñu ne Boy Niang du bëre ñii ne Balla Gaye du bëre ndax médical bi dem nañ fi ba faat fi suñu papa père Gasson te dara jotu ko mu ngi tëdd këram yooyu yëpp nag maka na ngi ci réew mi toog na ceel comprendre nga suuru lamb ji dem nañ ba tàgge eh, num tudda di père gasso ci lamb ji mhm. ba am ay nit ñuy joy ba am ño xamante ni neena dañu sañoo oh, yaay bëgg jël estati di def naan père gasso nangam mhm. père gasso mi ngi fi ba ci kanam mhm. yal nako suñu borom sam wiral ay cërem lolu ko dal man na dal ku nek man damay feebar damay am damay ñak parce que jam la lol jam la aajoo jam mo ajo febar mo ajo ñak comprendre nga tay Zarko mën naa bëree le 28 avril comme si que mën naa bañ a bëree le 28 avril te bu booba coow daam leen daal mën naa am muy dialogue promoteur yi nga xam ñoo nekk ci làmb ji te ne yéenante nañ jàmm tene ne yéenante nañ jàmm nan woote seen biir ñu def dialogue makan toog euh, nu mu tuddati jamaykee toog ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaan bu dee compréhension am na mu mën a bëree le 28 Zarko mu bëree le 28 bu fekkee ne amul mu dem bëre ji la 4 août déwén 2025 mu bëreel Gaston production te coow du jib ah, fi nga fi fi nga duggee parce da nga ne léegi euh, promoteurs yi nga xam te ne nee nañu danañu yéeneente nañu jàmm démb maa ngi ci nuyu ki nga xam te ne mooy Lamine maa ngi seetaan démb plateau bi bi mu defee plateau bi invité ay magub làmb invité ay ménageurs invité ay agents invité ñu bàyyi ci làmb démb mais démb bi nee ba ci biir damaa gis ku ci mel Aziz Ndiaye dugg ku ci mel ni Fallou Ndiaye dugg ah, ku ci nekk selon ni nga ko gisee nga waxee ko noonu que Jamaïcain xale la dañ ko war a encouragé félicité ko bu baax a baax ndax xale boo xam te ni moo ngi moo ngi dox ay jéego ci tànk ci làmb te yëkkati na xaalisam joxe ko CNG dañ ko war taxaw bu baax a baax a baax selon bi nga déggee ni ñu waxee noo noo ko jàngatee. waaw Jamaïcain xale la dafa nekk si làmb loolu dëgg la parce que boo dee xool ci promoteur yi fi nekk am na ñu fi jiitu am na ñu ko fi jiitu <coughs> dëgg la dañ ko war a taxaw xaalisam warul diig mm-hmm. dëgg nag yàlla rek moo ko moom tey. mën nga jox makan deug mën nga jox kay deug mën nga jox sensé deug parce que deug ku la neex ya koy joxe mais xamoo li nga wax deug la wala du deug Aziz tamit suñu frère la ñukoy nuyu bu baaxa baax ñu yagga teug lamb def ay événement yu nekk comprendre gasso papaam la comme ni koy waxe chaque jour makan frère am la kay rakam la mais lu ci man di am nañu wo ñaari kan yépp ga wote téléphone bi baax na bi baax yépp mais yére yu tilim yi ci biir kër gi lañ koy fóote yére yu tilim yi buñ ko fóotee ci biir kër gi ba pare ñu doog koo weer penc mi yëpp gis ko loolu boo ko déggee ci olof mooy nawoo makan mi frère am jamaykee mi rakkam ñoom ñëpp ñu toog ñu def dialogue bu ñu waxtaanee ba pare comprendre nga ñu woo benn site def déclaration ne lii lañ leen mënal ñun promoteurs yi regle nañ affaire bi jeex na si jàmm léegi lii ak lii am na na gaa yi nekk si jàmm fàtte coow li ku ci mel ni Fallou Ndiaye dama ko dégg bi muy wax selon li muy wax lépp li muy préciser mooy CNG dañoo war a jàppalewaat nit ñi bu baax parce que lii bu ñu ko bay bàyyilee kanam la jëm te bu jëmee kanam maanaam la muy jur ji ëllëg du nekk lu neex muy moom ak muy keneen ak muy jam ak muy keneen ak keneen CNG daal la gën a wax ñu gën a taxawuwaat xoolaat li bu baax bu ñu bàyyi lii mu jàll. waaw xam nga CNG bi tey dafa am règlement yu am si làmb ji. combat bu taxaw ñu andi ko CNG combat boobu officiel ci mbedd mi. ci mbedd mi la taxawee accord principe la rek lu yëg seegul fa mbaxana doone benn taxawagul bari na ay combat yoo fi taxaw ay mbër a ngi nii jëm ci combat am nañ combat te combat boobu CNG rek ku neeturu ko parce que yëggagul CNG te combat boobu taxaw na ci ay kayit ba pare comprendre nga kon nag CNG lu egg CNG la mën a protéger lu fa yëggul mënu koo protéger ñuy profité di nuyu suñu père Bira ak ña fa nekk yëpp max sa Ndiaye ñoom ñëpp su may waay la ñu leen di nuyu bu baax a baax mais dama ne ñoom lu yegg te ñoom xam nañ lu leen règlement bi may te complexé wuñu dinañ appuyer règlement bi mais lu taxawee ci biti ñoom loolu seen yoon newu si. Hmm. kon daal fi toon jàpp nga ne euh, coow li mu bay bay CNG bokk na ci ñëw trace lii mu féete ko. ah ñoom rek la ñuy déglu ñoo yor dernière décision bi parce que Zarko dugal na lettre am xaw ma lettre bi dañ koy accepté wala dañ koy désacté désaccepté xaw ma bu mu si man di doon mais buñ ko accepté tey. am na droit pour bëre le 28 avril bu fekkee ne dañ koo boleke nag day dem bëre ji la le 4 août CNG lu fa yegg lu nekk ci règlement lañ koy teg amul sang amul Paul amul Assane amul Modou Anta dañ koy teg si yoon bi. mais dama dégg jam ne euh, Zarko moom la bëreel bu ko Zarko bëreelul bañu ci ba bakkanam bi Zarko su dugalee Zarko su dugalee lettre bi Zarko su dugalee lettre bi waa CNG nangul ko loolu. ndax nga jàpp ne noonu la jàmm war a doxalee fi mu toll nii par rapport ak ni ko déggee ni mu waxee parce que moom jàpp na ne jàmm da ko war a bëre par force. ko da ko war ndaw bu tàng la rek. ndaw bu tàng la muy jamaykee bu jël xaalisam xoslu ba dugg ci comprendre nga du bëgg a ñàkk mais tey règlement règlement la rek bu bu bu règlement bi waxee ne ko amul droit bëre Coins si jamaykee lay bëreel <coughs> makan du coow du xuloo du wax bu règlement bi ne. Zarko am na du droit la le 28 avril bu boobaa jam ci réaction am à chaud nga déggoon avant rek mais bu boobaa dina protéger combat am bala 4 août bu Zarko paree ci coin su mu bëreel ko. Hmm. selon ni nga gisee promoteur yi des fois ni def combat jot mbër nekk ci contrat nga gis sa xaalis jox est-ce que tamit desul jot jotul tamit ñuy bàyyi ba mbër génn ci contrat bi. ñu doog a yëkkati xaalisam jox ko pour bañ yenn coow yi pour en lii moom day jàll mais su li jàllee est ce que jotul nga bàyyi mbër nekk ci contrat ba bëre ba dem jot reliquat ba noppi mu leer ko ne ki nekku ci dara nga doo sa xaaya jébbal ko méthode de travail la kenn ku nek ni ngay tojee sa bopp jinax loolu mun na yàq sax ay diggante mbër nekk si combat un mois avant wala deux mois avant le combat nga tënk ak moom combat ba jox ko avance ba jox yépp ñu signé tey bu làmb ja paasee mbër ma daanu wala mu daan avance ba yegg ca ménager ba yeggul ci mbër ma mbër ma mën na caa xëpp kaani ne bëreetuma fan lay mujj coow a cay ne am na si loo xamante ne promoteur bu mu neex mën ngaa xool noonu nga liggéeyee ko avant combat nga wax ak mbër ba leer nga tënk promoteur bu mu neexul tamit mën ngaa bàyyi ba mbër bu pare nekkul ci contrat nekkul ci dara nga dem négocier ak moom combat te boobu nag moo gën a wóor mbër mu pare nekkul ci dara nga ñëw waxaale fekk ko fa benn promoteur fekk ko fa benn benn contrat bu boobaa coow du am. mais am adversaire yi mu nar a bëreel tamit. am adversaire yi mu nar a bëre parce que mbay mu ñoragul kenn du ci génne asaka. tey mbër mi mën naa dem nga ne ko jox naa la combat yow ak diw mu dem daanu ne bëreew ma. wala mu dem daan comme Zarko ak bu ndaw supporters yi ne ko doo bëree combat bi yooyu yëpp a ngi si quoi. kon daal promoteur yi bàyyi ba mbër génn ci combat ba mu lekkul léegi na ñii laa bëgg a bëreel ñi ñii laa war nga do ko dem jox sa avance lol daal moo gën leer. non dal xel loolu mo gëna dal xel mo gëna leer di profito tamit di nuyu kanji production suma waji diko di ba diko jox waccu ko borom établissement Touba Dar Rahman parce que dang ma tanci nak nag nuyoo ma nuyoo ma xaw ma da nga nga non nuyoo ma. Ah. Père Gasso kese la nuyu diko ko ba diko jox waccu diko wax ne wax deug yalla gis nañ participation am ci réew mi gis nañ xale yi ni mu leen di jàppalee gis nañ aussi tamit malade yeeg xam nga <laughs> location yeeg yëpp ñu xam ci lu bëri nag di ko sant bu baax parce que tamit aussi coow li bari na trop mais as gor moom boo ko manee dimbali te dimbali woo ko bu deewee jarul ngay jaar dëjëm parce que ñu ko rey si nga bokk. comprendre nga man moom bu fekkee da maa mën a dimbali tane ma dimbali woo ma ma yuuxu fu ne buñ bokkee oto boo nee may ma toog man duma la may nga toog. ya kon kanji production ñing koy jaajëfal bu baax siyaar Abdou tal bu xarañ loo maa koy nuyu di ko babakar borom marché Petersen maa koy siyaar sama nijaay tamit maa ngi koy siyaar Moustapha Ndiaye président école de l'imam Mansour Mbaye maa koy di béggee Galso 94 bu baax di ko waccu wayam borom mafia bu wo koŋ bi Abdou tal aussi tamit ak Abdou sen bu sen koy di siar mam gor nak gor yombul ti si maa koy béggee bu baaxa baax talibé Serigne babakar sibi bi la cioli man na bari mais bari ko bu fessé du yëngu te yaakaar naa ne moom li koy suñu borom jagleel bari na trop. te boo ko góor yombul góor yombul nga faa yóbbu. góor yombul heure boo paree ñu dem fa boo fa demee laajal làmbaloog boo fa demee doo dootoo fa gëj de nee naa la bari ko bu feesee du yëngu de coow li mën naa bëri wallaahi la asiim. jox ko rendez waaw maam góor ñu ngi lay jox rendez-vous man fa ànd ak Adama incha allah foofu si place bi ñu def si fa interview incha allah rabbi moom ba bañul loolu moom mais nag du feeñ de. Ah. man nga koo gis nii mais doo xam ne kii mooy góor yombul la <laughs> làmb la ko waxoon nee na dafa dafa am benn maire bu ñëw ne ana goo yombul ñu ne góor yombul mën a waaye waxuma kii de ba mu saga yi waxuma kii <laughs> nee ñu dox tuuti rek di na góor yomb kaa kii mën a dee du kii waaye góor yomb non non du man. non mooy li ma la Ouzin bëri ko bu feesee du yëngu de li man ci réew mi bëri na trop xam nga gars yi des fois dañuy toog ci 30 millions wala 40 millions rek di wane na man la diw mm-hmm. mais yaakaar naa ne li mu toog ëpp na lool fuuf te bu la ko waxul doo ko xam. te gisoo ko ci micro gisoo ko ci média gisoo ko ci dara stade chaque dimanche day ñëw stade toog mm-hmm. waaw te lamb yu am bëri na ci ay boo yoo xamante bi nii dañuy rang place da leen di jàppale te boo ko waxee yaa ko wax mm-hmm. waaw boo ko waxul du ko wax kon nag kooku moom bu nekkee si réew mi moom boole patt ak organiser xam nga <laughs> liggéey lu bari wax tuuti dañ ko war a jàppale bu baax a baax hmm. gis ngeen mbokk yi tey Modou Anta leen seet woon bëggoon ay tuuti éclaircissement rek ci li nga xamante ni mooy actualité bi nga xamante ne am na ci làmb ji waaye defe naa ne li mu ci wax leer na fi mu toll nii nañ bàyyi waa CNG ñu tracé ba noppi. balaa balaa balaa ñuy tëj sax dafa am lu ma fàtte woon lu ndaw tuuti rek euh, parce que Diop 2 dafa nekk révélation boo xamante ni defe naa ne fa yii yëngal na yëngal na làmb ji waaw parce que saa bu ñëwee day bëre mu neex bàkk mu neex ànd ambiance sottee ko sow mi ñu bëri di ko bàyyi xel nag parce que doon nañu fi dégg combat mi ci bëri mais keroog dañoo jëli Fallou Ndiaye euh, ci kaw tribune ba mu ne mu ne woon combat am taxaw na mais bi ñu ko laajee Diop de kan nga ko boole dafa ne compte X lay def bëggu la wax. selon yow mi nga xamante ni yàgg nga ci làmb xam nga mbër yi ñu war a bëri combat yu ci bëri buy taxaw defe naa ne di nga ci di ko yëg wala ci sa loxo lay taxawee Diop de fi mu toll nii nan nga jàppoon ne ñooy adversaire am potentiel boo xam te ne làmb ju làmb jànk. waa Diop de ñi mën a bëreel bari na parce que moo giro séerase rek loolu làmb bu neex la promoteur mi ngi ci woon mais mu jawul taxaw Diop do aussi tamit ak Boy dakaar combat bu neex la. Mhm. Liis Ndiago dafa am combat mais moom Liis combat bu neex la moor Kankang doon naa ko fi wax ñoom ñaar. Mhm. yooyu yëpp ay combat la Diop de Kewel làmb la Diop de Nandi Fall la mais man combat bi ma dàqal mooy Diop de ak Siteu bu Ngor loolu lamb xale la quoi. Diop de Siteu bu te man naa am de. te te oh, pourtant nag pourtant nag ba keroog bi Siteu bu Ngor ñëwee stade bi ñu ko waxee dafa ne na Diop de Diop de na ma xaar. na xaar kon kay jàppal ne combat bi taxaw na. Siteu kay bu la joxee rendez-vous ne la ne la Diop na ma xaar billaay na ko xaar bu ko waxee dëgg la de. keroog dafa ne Diop 2 na ko xaar ndax ñoom ñaar yàgg yàgg dañuy bëri na ko xaar lii la wax na ko xaar te xaar nag koy xaar moom ku la war dab la war nekk wala ko war a dabu yow. xaar bi yàgg na waaye maa ngi ñëw kon nan la xaar le 18 passé ak Petit Production moo tëgg Siteu bu Ngor ak Naaru Sokaas. Fourrière bu Grand Yoff ak ki nga xamante bi nii mooy euh, kii Caatu Jolof. Sabala ak yan mooy Babacar kon nag. lu man di xew mo xam job de cité eh, daanu wala mu daanu ah budé nako xaar mom waxna lol nako xaar jappal na combat ba taxaw na parce que Fallou ndjay adversaire lay wutal job de. japp nga ne combat boobu mën na taxaw a 4 comme ni nga waxon a 95% wala a 100% nga na may 100% parce que lamb kessé la ku daw da nga ragal mo xam cité daan wala mu daanu mo jë Diop de lamb kessé la. parce que tamit job de ken mënu ko bañ 10 combat 10 victoires cité bu ngor bo dee xol mi ngi ci ay 8 wala 9 combat comprendre nga lol bu taxawé combat bu neex la Siteu bu Ngor ben défaite la am job de amagul défaite lol challenge la bu taxawé dañu tej arène nationale bi en tout cas dal na koppar yi génn xaalis bi bari combat bi taxaw. mais job de war a dox ñëw ak soomek euh nu ngi koy way ak ak ak ki nu ngi koy way fo yu wéx ya. papier blanc yi. Euh, Siteu bu Ngor waaye yof nga top ko mu ñew arène nationale lolu xana lolu moy fallu ñay li ñu wax na numéro 10 da koy da koy da koy da koy confirmer bu bo xam nga fallu nak cioli man na bari torop mais lamb ju amateur yi bëgg rek lay andi lamb ju amateur yi bëgg rek lay andi xam na ne job de ak sita bu ngor bu ko taxawale combat bu neex la té nonu mako déggé mu wax xam nga nak da bari pexé nonu mako déggé mu wax xam nga fallu nak dalay signaler gauche jaar droite man wax ji ni mako déggé ba dégg ko non sita bu ngor job de taxawna ah. da baña wax rek mais taxawna dé kon mbokk yi defe naa ne tey loolu la ñu andi loon loolu defe naa ne information la woon euh, dinañ jox dig daje ma bàyyi ko mu tàggatoo wala da ngay da ngay bàyyi noonu monsieur da ngay tàggatoo. a tàggatoo a tàggatoo. waa di santaat bu baax di la jaajëfal di jaajëfal aadama di ko jox wàcc waayam bu baax di siyaar ñi ñuy suivre ci ETDR di nuyu aussi tamit Momo production moo du Baye faal di suma waay combat bi passé wax dëgg yàlla ñu ànd ci. liggéey ci liggéey bu am solo muy dëgg malaat incha allahu rabbi la 20 mai si diggante Anaconda ak ki nga mooy Boy Sey ñu ngi ciy waaj liggéey bu am am am solo am na ci mbër yoo xam ne ñu ngi fi ñu ngi leen di wutal adversaire mais comme làmb ji képp koo wax ku nekk promoteur yi daw démarche loolu moom dañ koy bàyyee rek en tout cas daal ñu ngi waaj la 20 mai ak Momo production incha allahu rabbi jërëjëf. gis ngeen mbokk yi noonu demee woon Modou Anta leen seet si woon sans frontière wala boog Gaston production sans frontière moom depuis jamono yu booy la mais léegi am na frontière <laughs> waaye mbokk dina jox di daje beneen yoon ci ETD Média jaa ngeen jëf. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba établissement Touba Darou Rahman soula la neexee mën nañ laa jox kaya gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi, li ci fondation élevée tabakh.